bɛ bɛn ba a tɛ a bɛ lɔ a mun ngaa joxe fukki junni weexal fukki junni bari di doo ndax mën nañ ci wàññi daal fukki junni daal defe naa mooy weexal ko ni doo be loolu lañ ma diggal fukki junni jaral nañu comme ñun ñoo soxla mhm. liggéeyal ñu mën ngeen am karawu dënnam. karawu dënnam. ah ñàkk ñàkk yaramam. ñaar yooyu yëpp benn yomb ci di. loolu jafe na mën naa hmm? moom nee na dina lijjanti loolu kon liggéeyal. boo leen amee loolu moom andil ma ko dina ma yomb liggéeyam léegi nag bu ma jotee loolu bu ma ko defaree ba pare ak ah, li ma si yokk bu ma leen joxee saafara bi mu leen di jox. Mhm. boo leen eggee seen kër. ngeen defal ma ko comme li ma leen ko waxee. boo leen ko toggalee. Mhm. ngeen jël tuuti ngeen sotti ko si ñam bi l'essentiel na si lekk bu si lekkee ba même muy benn weddi dootu fa amati. daal lool lañ bëgg nag. lu mu ko laaj loolu lu mu wax loolu la. loolu rek lañ soxla ci moom. loolu daal. buñ ne waaw mu ne waaw buñ ne déet mu ne déet. boobu moom. lenn rek a ma fi jaaxal na loo xam ne mënu ma leen ko garantil ndax mooy jëkkër gi gën si moom. ñun sax moom gënaluñu ñun. Hmm. moom gënaluñu dafa fekk kay. dégg nañ ko wax bëtti bëtteem ñu defe ne am na lu dul jeex sama benn mbokk topp ko ba hmm. dëddale ko ak sama doom pour may ko doomam loolu nag moo tax ma ñëw nii ci yow. Hmm. mais moom gënalu ma moom ba may préparé ndey mii du pour moom. lenn daal xam naa ko ku fi dugg. sa soxla dina faju ku fi dugul ku soxla dugul faju sax loo xam ne nag day topp ndey lang ci moom lu mu am lépp nañu ko jox ba buy ñibbi Côte day dox di dem lenn daal boo leen ma ko defaree saafara bi ma leen jox ngeen def ko si lekk lépp am dina ko topp comme xaj lañ soxla dina takk lu mu wax loolu la defal ñu loolu comme ku borom bi ku boromam mm-hmm. defal ñu comme loolu sëy bi moom bu koy takk ci timis muy tas si geesa na ko jàdd mu jeexal takk ñibbi